tey école des jeunes mariés dañoo am comme thème euh, ndax liggéey ak sëy ànd na maanaam jéeg ji nga xam ne dañuy liggéey boole ko sëy ànd naam àndul nag nañ dem seetaan élément bi sa kaate delsi tey liggéey kay ànd na ndax toll nañ jamono yoo xam ne moom fi ne nii nit ñi moom liggéey moom góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp la war gaa sa jëkkër dina bëgg a man lépp sax waaye ne ci kër gi bëgg a yor njaboot gi bëgg a lépp nga bëgg a sa bopp il faut nga dem liggéey moom ah confiance moom demul ci nekkul ci cadre liggéey nit mooy respecté boppam ba ku gis wóolu jëkkër ak jabar ay wóolante nekkul ci nekkul ci liggéey bi ndax sa jabar boo ko fekkee nu nga ko war a fekkee fekk ko fi nga ko war a fekk di nga a respecté xam nga bu njëkk jigéen boo toog ci biir papa nekk fi nijaay nekk fi yaay nekk fi bàjjen nekk fi ñëpp nekk ci biir kër a am problème sax paye parents yi ñoo koy di seen bopp waaye léegi xale yi seen kër la nekk nekk seen njaboot nekk ak a liggéey sa jëkkër li mu bëgg lépp du ko mën a am ah, a bàyyi sa jàng a liggéey il faut nit ñi liggéey liggéey moom moom moom mu fi ne moom lépp daa war a am moom liggéey waaw bu njëkk da nga daan toog ah macha allah mais léegi jamono changé léegi sëy bi ak liggéey bi mun na ànd mais nag lépp ñu teg ko ci yoon di xëy di wàcc ñëw sa kër di gere sa kër normal jàppalante daal sëy daal comme ni ma la ko waxee jàppalante la ñu jàppalante te yàlla rek tax yow miy jigéen di xëy nga xam ne da nga bàyyi sa kër bàyyi sa borom kër buñ ko tegee ci yoon rek te yàlla rek tax sëy bi ak liggéey bi ànd na li ngay wuti pour kër gi la ak njaboot gi sa jëkkër jox ko cëram loolu mooy dëgg da damay liggéey jamono léegi xam nga rek àddina bi tukki lu nekk am na waaw liggéey tuuti rek changé ah di def yow xam ne di ko jaay sa jëkkër loolu tam c'est pas normal ah, balaa moo ñëw nga daw dawaat si kër gi ñëw dafay da ngay jàpp fii mu jàpp fii rek day defar mais dëkk bee métti rek si ji ndax dina moom noonu la ñaar bu ñu ànd dañuy jàppalante ku góor ki kañ moo war a comprendre ku jigéen ki ndax bu ko comprendre dinañ dem ndax bu liggéey jee dawaa ñëwal si kër gi du ko teree def ay activité am si kër gi waaw maa ngi nii de damay liggéey nii terewul su ma wàccee maa ngi sama kër di def li ma war a sama jëkkër bu baax sax naa su ma wàccee fii damay wàcc fii dem toppatoo samay doom toppatoo sama jëkkër moom di ko digal nag sama moroom jigéen ñi nag pour ñi nekk seen place liggéey bu jigéen seen place liggéey nañ dem sa kër ga toppatoo seen jëkkër macha allah si kàmba yi ñoo ko dégg doom mu nekk kàddu yoo xam ne nag ay jong maa ko yëkkati nee naa la weer wi nag weerum jigéen la waaw jigéen ñee moom weer bi ba tax na nag lépp loo xam ne lu ñuy waxtaanee si école des jeunes mariés fii ba nag <laughs> ba weer wi dee jigéen ñi la ñuy àndal su kaamee man dama naan waaw liggéey ak say mën na ànd ba dee parce que des fois nag su euh, jamono dafa changé sama tànta wax na ko sànq des fois sa jëkkër dina mën loo xam ne mënatu ko woon dina mën dina dina dem ba àdduna def dina dem ba lam daan mën mënatu ko te yow soxna si bu fekkee war nga mën a jaay caaf war nga mën a xëy mën a liggéey war nga mën a xëy mën a jaay jën boo wàccee mën ko cee dimbale man dama naan loolu dara nekku ci ci kaw nag su kaa lépp dañ koy teg ci communication parce que des fois mën nga ko mën bëgg ko te sa jëkkëru nangu li koy waral mooy dañ naan dafa fiir dañ naan bëgguñ ji am na góor ñoo xam ne bëgguñ seen jabar di dépenser un franc ci kër gi mais ba tey dama naan euh, nit ki boo ko takkee da nga koy wóolu parce que ki nga xam ne nag yaa ko saytu si jigéen ñëpp takk ko kooku yaakaar naa boo ko wóoluwut jarutoon nga koy takk kon mook zéro yam kon nañu warul soxna yi bàyyi leen ñu liggéey dimbale parce que bu buñ liggéeyee rek euh, yow la ñuy dimbale sa njaboot la ñuy dimbale ndax bépp jigéen ñaan na yàlla tey sa jëkkër bu defee nga def un parce que yéen a ko bokk kër gi yéen a ko bokk bu baaxee yéen la baaxal seen doom la baaxal ba tey dama naan am na yenn euh, yenn jigéen ñoo xam ne tamit euh, boo gisee góoñu di leen tere liggéey am na fu ko teg mooy ñàkk te wóolu gi ba tey ci laa ñëw parce que ngay am sa jabar mu yor yenn comportement yu ñàkk fayda yoo xam ne da nga naan kii wóolu ma ko sax ak fi muy liggéeye wóolu ma ko ak ñi muy liggéeyal da ngay góor da gis koo xam ne day préféré na ko bàyyi liggéey bi le sal salaire bi nga xam ne dañ la ko doon fay sax man mën naa di la ko fay man loolu gis naa ko benn douanier boo xam ne jabaram da doon liggéey ci banque mu bàyyi loo ko liggéey bi di ko fay sa am man loolu gis naa ko lan moo tax mu def ko parce que nee na wóoruwul jabar ji tellement jabar ji taaru na jongo mën a jongo ma doo xam ne neexul nag di romb neexul mu romb la yow miy góor te amoo yenn kii ci moom mais ba tey dama naan yow ku jigéen ki am na loo xam ne kanam goo xam ne nga ko sa borom kër ba xaw a ragal parce bu fekkee fu ñu la yaa ngi taxaw di góor ñi tàppa santé fu la fekk góor gu wax benn nga ñu ko fukk am na jigéen comportement boo xam ne da koy yor gis nga kii sëy bokk tokki sëyut man mii yu tey mën naa romb ab laay waxtaan ak moom kafanteeg moom ree mais gis nga boo nekkee ci sëy dafa am yoo xam ne da koy méfier parce que ñay toog fee euh, di la teg taxe fenn fi bul xam li ñuy wax si yow ak a ñàkk xool ko pourtant day sëy de te jigéen góor gum romb tàppaa wax naa yow kon loolu jigéen ñi dañ ko war a méfier parce que bu ñu koy wax sax sa jëkkër bu ko déggee même yow bu fekkee am na ñoo xam ne du ñu bon dañ koy def juste parce que am ñoo xam ne dañoo ouverte su fu ñu fekk nit ñi kafooreel lañ xam mais nit ñi ñoo ko dul ñoo ko dul jugé noonu dañ naa dafa ñàkk fayda pourtant mu ngi say de foo ko fekk mu ngi toog ci bidigu góor yi góor ñi lay waxal góor ñi lay tàppasanteel fekk yow ñoom li fi ñuy fi ñu koy jàppee sax yow xoolal xooloo foofu sax mais wax ji ñuy wax mooy ñaaw tellement que bu yeggee sa borom kër du neex sa borom kër mooy tax góor jigéen ñu bëri seen jëkkër yi leen tere ñuy liggéey parce que jigéen góor gu nekk na xam tey sa sa jabar buy liggéey euh, bénéfice la si yow lu bëri dina wàññeeku si yow mais tam dama naan fenn d'accord ma liggéey euh, ànd ak sëy parce que am na yenn liggéey guddi liggéey ànd ak say fenn d'accord ma si maanaam liggéey guddi dafa ñoo xam ne seen liggéey guddi la comme genre xale jigéen yi nekk si péage yi mhm. war a fanaan man loolu euh, man man dama part man nanguwuma ko man bugguma ko sax parce que li neex ci sëy yëpp guddi lay xew su kaambay lii neex sa gudd <laughs> lii neex sa ya guddi lay xaw du ma nangu man tey ma doon góor sama jabar di liggéey guddi bëccëg mën naa la ko accordel mais guddi moom su kambay franchement parler yéen ñi liggéey guddi gi xoolaat leen parce que tamit des fois mooy tax euh, ñu góor ñi mën nañ jaadu rek wala genre déedéet parce que non lu tax lu tax du am ñiy jaadu rek bëccëg ngay fanaan ah mën nañ jaadu feneen man foofu moom d'accord ma liggéey guddi gi moom ci jigéen. Mm, d'accord moom jigéen buy sëy na toog gérer guddeem daal. bu xëyee dem liggéey bu wàccee gérer jëkkëram. ci loolu laa d'accord su kaa alaaj alaaji saa yaa may xool rek. kon yow ban. waaw macha allah eh, liggéey d'abord da ngeen a war a xam ni sëy ab liggéey la. moom ñu démarrer. Ah, yéen jigéen la eh, xam nga ñun ni ñu tëggee sëy <laughs> maanaam suñu culture ñun Sénégal parce que boo seetee dañ lay wax ne la foo togg paase lépp ku jigéen ki la war mhm. kon boo duggee cib sëy rek dugg nga cib liggéey du dëgg dëgg parce que loolu yëpp mooy ni ñu ko tëggee maanaam ñun xam nga bu dee yeneen culture am na yeneen culture yoo xam ne doxeewut noonu mhm. am na ñeneen ñoo xamante ni bii soxna si warta liggéey dara mhm. kooku ndaw soosu peut-être mën na liggéey mais bu dee ñun comme si suñu culture fii ñun li nga xam ne noonu lañ ko doxee sa jabar moo la war a defal lii sa jabar moo la war a defal lii sa jabar imaginer mu xëy dem liggéey am coo même coono bi ngay am nga wàcc mu war a nekkaat ci say service mhm. comme ni nga xamante ni bi noonu lañ ko war di defee mhm. dañ naan wut service yi parce que bu boobaa mhm. dana sonn coono goo xamante ni bi la ëpp solo ci sëy ba bu jotee day tëdd di nelaw comprendre la kon day mel ni ñun ni ñu tëggee suñu société ni nga xamante bi noonu lañ jàpp ni jigéen ji nga takk lii moo ko war ci kër gi bu fekkente ni bi tegu nañ ci charte yooyu jigéen waru fee liggéey kon ñun niñ ko tegee mhm. c'est que nag bu fekkente ni bi dañu bëgg nag léegi dindi loolu faaw ñu am neneen nuñ ko tegaatee pour xajal ci jigéen ji mu mën di xëy di wàcc mhm. du dëgg mhm. léegi nag ci biir loolu aussi dafa am leneen loo xamante ni bii dafa war ku góor ci biir kër looloo tax daanaka ñu jàpp ni njariñu liggéeyu jigéen amut njariñ parce que dañuy wax jigéen bu ñu lay tànnal jëkkër dañuy seet ku la mën a yor maanaam gàddu say frais te yow booy dem da ngay am loo xamante ni bii euh, li ngay liggéey yëpp pour loo régler say problème la du mm-hmm. dëkk loo mën a def boo mën mënee solu boo mën a kii ñu ne la wodd ko dëkkal ko dëkkoo ko gérer ko en quelque sorte financièrement da nga ko war a gérer da nga ko war a taxawu. danga nga ko war a matale lool lool da nga ko war a matale. léegi li tax góor ñi gis ni liggéeyu jigéen amut njariñ parce que jigéen ñi sasuñu leen ci kër gi mbuusum xorom sax pour ñu jënd ko. maanaam dara waru leen. te ba noppi bu ko góor ki fayee ko yëkkati la nga xam moom la fay jox la pour sa argent de poche moo tax sa liggéey caaxaan la ko góor di jàppee. maanaam góor normal li nga xam ne moom la ñuy jàpp ba tax yenn góor yi di bañ liggéey am na ñoo xam ne bañ nañ liggéey c'est teguñu ko sax ci fiir mm-hmm. mais yow sa xaalis bi ngay liggéey soxlawuñ ci dara te li la waroon ci yow day kii société yi nga xam ne jigéen naa ngi yi liggéey nga xam ne dañ ko fa autorisé dañuy teg xaalis bi ci digg pénc mi maanaam buñ paree dañ koy teg ci digg la kër gi ñu génne dépense yi maanaam ku jigéen ki day participer ku góor ki di participer bu foofaa liggéeyu jigéen am na njariñ foofu parce que di nga gis koo xamante ni kii su weer wi deewee sukaa fayeeku na Boubacar fayeeku na teg nañ xaalis bi ñu génne depense yi li ñu war a denc ñu denc ko pour ëllëg si biir bu ñu waree dem vacances ak loolu lépp nga xam ni lépp dañ koy jël euh, mm-hmm. programme ko mm-hmm. mais bu fekkee ne benn poste bii dong mooy def ana njariñu kee lu muy liggéey mm-hmm. looloo tax ñu bari moo tax ñu bari di non xam nga fii dal xam nga fii nag Sénégal noo seulement ci liñ la wax ne la yor ko kii ak yooyu yëpp sax da nga ciy boole sax goro yi comprendre da nga ciy taxaw yooyu yëpp da koy da nga koy gérer waale yaa ngi dégg tey ji yow sa jabar bul fekkante ne bi dana la yaayam dara dal na ko yow ni mu waree nga lijjanti sa problème mu yaay noonu ngay lijjantee problème am parce que dalaa war parce que loolu charge la yoo xamante ni bi tegaale nañ ko encore tamit ci ndodd ku góor gi te ku góor gi nangu nañ ko accepté nañ loolu loolu moo tax ñenn ñi bu ñu bañee mën na nekk problème mu fiir par contre nag am na ñoo xam ne nag fiir moo tax mhm. ñu wax ni kii parce que parrainage nga gis koo xam ni euh, peut-être mënut a loolu yëpp ndaw si ne ko teemaa jéem a def lii ngir mbir mi gëna loolu mais mu lànk ko c'est parce que li tax mu lànk ko c'est parce que dafa fiir Mhm. way laa comme euh, occasion ki nga fi expliqué sànq nga xam ne dañ ne ko bàyyi liggéey bi ndax kii parce que nee na wóoluwut jabaram kooku nag fi mu toll garaaw na parce que boo mhm. sa jabar euh, pour nga war a mën a continuer di sëy moom oh, problème la parce que da ngay xëy liggéey bàyyi ko lépp lu mu bëgg a def mën na ko def mhm. que ni nga bàyyi ko ci kër gi moom donc mu nekk faak euh, nga dem kii loolu yëpp kii la donc en tout cas daal suñu société bi moom ni ñu ko tëggee moom jigéen ñi moom wax dëgg fa yàlla beneen cas sax dafa ma laaj saa nga baal ma doguma la am na ci ñoo xam ne du cadre fiir <laughs> am na ñoo xam ne alaaji saa du cadre fiir moo tax ñu koy def mais bañ ku leen yàpp parce que dafa am jigéen ñu gaaw beew tey da am benn dimbali sa jabar mu xëy yor ñaar di defante yow ci kër gi am na ñoo xam ne góor yu loolu la ñuy sóoraale ëllëg parce que dafa am ñu gorewul xam nga xam nga ñi nga xamante ne bi tamit autorisé nañ loolu xam nga la plupart Euh, lépp lu ñuy def ñoo koy bokk mais boo demee société yooyu tamit daanaka ñi ci ëpp benn jabar la war a takk mhm. parce loolu la ñuy signé mhm. comprendre nga mais fii xam nga bu fekkante ne bi yow da nga war a takk ba ñett ba ñeent yaa ngi na yu bari yoo xamante ne bii tamit ndaw si buy liggéey euh, du ko def du bëgg mhm. lool parce que danaan góor ñii koo ci jàppale bu taxawee dem yoonam am na ñoo xamante ne bi dañ naan du ma dimbali sama jëkkër ci dara boo koy bàyyi muy dajale boo koy dimbali muy lool bu ko waxee lii léegi mu takkee ko ñaareel parce que bu dajalee xaalis bi rek takk dëgg la waaw ñoo xam ne ah. loolu mooy kii mais daal en tout cas li gën daal mooy ngeen dem toog. <laughs> yàlla tere. waaw ah <laughs> affaire la de mënuñ ci dara. xalaatam la wax. nañ ko ko nangul rek. <laughs> kon nag kon nag am ah na d'abord nga liggéey pour man balaa ñu egg ci liggéey. dañuy ñaan yàlla may ñu jigéen ju baax. pot mayonnaise lay jël yónni yàlla may. Hmm. jigéen euh, jigéen euh, jigéen ju baax. amiin uh-huh. amiin jigéen joo xam ne am na éducation préparé nañ ko. Uh-huh. pour man bu dee suñu borom dala may soxna soo xam ne pare na. kooku mën nga ko sax may mu tukki dem ñëwaat. Uh-huh. parce que déjà moom dans sa tête xam na ni am na kilifa xam na li ko war ci sëy xam na lu mu war a nangu xam na lu mu war a bañ. mais aussi fiire na boppam. dëgg man parce que pour man firange bi ci njëkk mooy nit ki des fois ñu ne bëgg fiir la mais des fois nit ki boppam la bëgg. mooy des fois mooy indi yenn firaange mais nit ki bu fiiree boppam surtout jigéen yu bëri mën na ci génn tentation yu bëri mën na ci génn fu ne mën na fa dem ñëwaat doon ku mu doon mm-hmm. mais aussi tam bu xamee boppam xamee kilifaam parce que yow da laa dénk nit mu ne kii mooy sa kilifa mm-hmm. yow ak liggéey boo mën a dugg ci àddina dangay am la tête sur les épaules mm-hmm. mais am na ci ñoo xam ne moment bi ñuy liggéey lu tax góor ñu bari di ko bañ ci la leen seen borom di ñàkk surtout buñ commencé am promotion di am daraja maanaam dañuy dem ba day mel ne jëkkër bi mooy sëy sëy bi bu dee bi da jëkkër ji dafa néew doole wala mu doon góor gu feebal mm-hmm. day dem ba mel ne moom mooy léegi di sëy sëy bi mm-hmm. mais kee moom dem di uti jigéen day dem ba nekk ci position de force boobu man gis naa ku jabaram ñàkk liggéeyam ma foog ne da koy naqadi mu neex ko mu ne day tax mu mën ko yor mën ko téye mm. waaw mun na parce que liggéey bi fii ak ngi kii moom day jàpp ni soxlaalu ma dara xam nit ki mu soxla la dina tax nga mun ko téye. mais bu dee ba am na autonomie ci côté koppar côté yu bari dem ba yow mi ko waroon yor ci lépp yow mu waroon yaakaar ci lépp soxlaatu la ci dara moom mun na demal boppam. daa bëggul rek. nga gis koo xam ne mhm. tey jii maanaam liggéey bi dina tax lépp lu nga ko sant ci liggéey mu nangu ko mais bu eggee kër ga bañal ko borom këram. ñàkk bëgg la rek. am na ñoo xam ne non non xala bu ñu eggee kër ga lan lan fay nekke damaa gémmal damay teel dama xëy damaa sonn. bugg ko alors que patron ba leen di liggéey bu leen tàngaloo kafe ñu tàngal. ñu def bu leen doxlaa soxla ñu dox ko mais bu ñu eggee kër ga di taafantoo liggéey bi pour di ko bañ. yàlla tere day am jigéen ñi def loolu. liggéey day tax ñoom ñu ñàkk leen ñu ko ñooñ nag mooy ñu wax ñoo xam ne kenn préparé wu leen mais aussi pare wuñu psychologiquement pour mhm. dem liggéeyi. Mhm. man bañu ma jigéen liggéeyi. mais ban jigéen moo war a dem liggéeyi. Mhm. mais a dem liggéeyi. mais am na ñoo xam ne tey jii fenn lan lañ xaj ci biir kër gi ak togg kay ak lii nii. <laughs> parce que seen mentalité ci loolu la bis boo leen booyalee bàyyi leen ak mbedd wala ñuy dem di dikk ñoom dañuy foog ne àdduna bi foofu la yam te dafa am jigéen ñu bari ñoo xam ne tey jii dañuy dugg ci biir néegu teg ci di yàq seen deru borom kër am na ñu koy def te deful dara seen borom kër mm-hmm. maanaam liggéey bi la ñuy taaf man de lii laa lii lii nii yàq seen deru borom kër mm-hmm. te pourtant li war ci ñoom yëpp seen borom kër moo ngi koy def mais ñu liggéey nag dañoo aay hmm. nañ ba léegi xam nga dañ daan di togg di yooyu say amatu fi yooyu say amatu fi yëpp léegi léegi yëpp est xam yaa koy def mu ngi am ba tey de góor ñee koy def góor ñi dëgg yam ba tey waaw góor ñee koy def léegi rooti root lan <laughs> góor ñee xëcc robinet bi bu robinet <laughs> loo xëcc ngeen war a def loolu seen war a def góor ñee ko di nga tey di fayal la fóot ka waaw seen wareef la. di nga di nga <laughs> tey di ah. seen wareef la ba tey. Ah? loolu seen wareef la ba tey. moo tax moo tax ba jël loolu yëpp orienté waat ko. moo tax dañuy ñaan yàlla bu ngeen gaaw a sëngeem. dañuy ñaan yàlla bu ngeen gaaw a def. <laughs> ngeen sëngeem su ngeen defee dinañu sonn. dëgg fa neex yàlla di nga di mm-hmm. am naa ci jigéen ñoo xam ne tey mën na dem liggéey mm-hmm. mais liggéey bi maanaam li muy yàq mu ëpp li muy defar. Mm-hmm. maanaam da ngay dem ba benn moment yow da ngay xam ne liggéey bi li muy yàq mooy ne parce que autorité bi nga amoon ci ñoom ngay ñàkk complètement parce que te loolu lépp li ko indi moom mooy liggéey bi liggéey bi mooy indi yenn fréquentation yi mooy indi yenn day parce que jigéen aussi dafa mun toppandoo mm-hmm. mais di mooy indi yi yi nga yenn tentation yi parce que am ñoo xam ne oyof bopp mm-hmm. xamuñu seen jëkkër ak keneen maanaam bu la miinee jeex na te n ku ne daa war a yem surtout boo nekkee ci néegu sëy jigéen day fiire kenn waxul da ngay nax deret ba ku la xool nga juxar bi ko mais daa am foo xam ne ay limite la boo ko ak sëyul nga nga téye ku say doom beneen bi sopp mooy conséquence say doom yow boo demee liggéey ñu ñuy wax ñoo ne dénk na ko jànq bi mais tey ji wax ma ku la yar ma wax la sa jikko man bi ma lay takk sa jikko moo ma neex jikko jooj laa bëgg nga def ko man si samay doom mm-hmm. yow ma takk la nga xëy dénkaane keneen sama jigéen sama doom jikko ju ma leen jox est-ce que man jooju laa bëggoon mm-hmm. kon tey dama jàpp ne góor gu mu mën ci doon ci àddina léegi nag sikkim moo lakkandoo jamono moo jafe mais de ku mu mënoon doon ci ñun même bu amee ñeent soxna da pour man góor dafa war a ñaan yor wërsëg woo xam ne comme li saa di wax maanaam waddu yor dëkkawal dëkkoo pour man loolu moo war a doon taxawaayu ku góor ki léegi nag bu ñu demee ba egg benn jamono boo xam ne jamono naqar yi jigéen ñi lu ne ñu dugg ci dëbb dëbbal mais bu dee ni jigéen ju xam boppam la mën na ci génn mhm. mais am na ci jigéen ñoo xam ne tey ji conséquences yu muy jur. Mm-hmm. ci seen liggéey day dem ba benn moment liggéey bi du ko jarati. Mm-hmm. te dañuy jàpp liggéey boobu. jigéen ju xam boppam sax mais tamit jigéen ju bëgg. am na góor ñu mën lépp. bëgg amul ba mu des. bëgg amul bëgguñu kenn. dëkkoo la seen bopp lañ bëgg. ah. Hmm? Hmm? alaaji nga ne. dama ne. dama ne dama jigéen ji ak ñoo doy waar. am na góor ñu mën lépp ba mu des dëkkoo bi. Hmm. yaa ngi am na tamit. góor ñoo xamante ni bii mënuñu leen waaye dëkkoo bi ñoo ci man yaa ngi dégg mais yëpp jigéen ñi dañuy kaas léegi <laughs> wax <laughs> te te lépp daje ci kenn moom yomb waaw eh? ah. lépp yéen waxu góor rek ngeen fi wax des eh? fois yéen ay góor rek ngeen fi wax di nga mën di nga mën lépp ba pare mën a dëkkoo mhm. waaw waaw ah, loolu la la te boobu loolu bis loolu lépp. pilis la day baax mais c'est xam nga loolu. bu amee ah, mën naa am mais ah, nag saay tamit la lay am. yéen daal waxu góor la ngeen fi wax. ah en tout cas en tout cas saa fi bu laal baax na de. Eh, man yow moom yow moom. bu mënul ci bi mën ci bee ngay téye nga xam ne am nga. <laughs> alal la matériel la. waaw waaw macha allah. yàlla du la may lépp léeg-léeg nag am ñu mu may lépp. wërsëg waaw bu la may lépp nag nga xam nga xam ne <laughs> lépp pilis pilis la encore macha allah <laughs> waaye Omar dafa am lu mu wax lu am solo muy. Mm-hmm. jigéen mm-hmm. maanaam nit mooy fiire boppam mm-hmm. gis nga jigéen boo bu dee da nga diiñ ci sa bopp xam sa bopp am éducation de base am na lu bari loo xam ne doo ci dugg mhm. jigéen foo ko mu am na jigéen ñoo xam foo leen fekk tàppante sa yëgoo ñëw tàppante lëngante xale yu góor yi xaritu xale yu góor yi maanaam ku nekk ñu bëgg laa def xarit mhm. jigéen jooju bu sëyee pour mu génn ci rythme boobu du yomb parce que lu tax mooy tàmm na ko ba pare bokk na ci éducation yare na loolu boppam ba pare mhm. léegi góor ña mu xamantee loolu ña ko xam ci loolu dañuy naan nii la mel même bu fekkee bonul sax mais mel na noonu nit tàpp ko wala mu tàppante ak ay góor loolu du doon dara si moom parce que moom mm-hmm. loolu tàmm na ko am na nag jigéen ñoo xam ne dañoo jiiñ fiir ci seen bopp du duñu duñu tàppante du duñu lëngante ñu def yenn geste yi nga xam ne dafa vulgaire ba nga xam ne góor bu leen xool sax danaan yee naa naa xam fu may lu may wax ak moom ndax am na luñ lay ragalee am na caractère boo xam ne dañ lay ragalee Omar wax na ko waroo jigéen waroo eh, dangaaral ba ñëpp ragal la mais tamit waroo kii ba ku ñëw rek am si yow accès. waa neex deret baax na mais bu euh, am na foo xam ne doo fa voilà day am mhm. limite loo gis ci àddina day am limite am na mhm. tey góor gi nga xam ne ñëw na takk la mhm. ba mu lay takk fekk na la ci sa liggéey maanaam ci sa teranga la la fekk góor googu bu la bëggee tere liggéey bañal li may wax nii man dund naa ko bàyyi liggéey teranga ndax sëy ndax góor dund naa ko am na ñoo xam dañ ma naan bàyyil di joxe exemple ci yow mais exemple ba nit ki li mu dundul mënu cee débat mënu cee wax mais li ngay dund da nga mën a joxe leçon mm-hmm. jigéen ñu la fekkee ci sa condition yu baax nga nekk ci mm-hmm. ki lay takk bul nangu mu jëlee la ca parce que bu la ca jëlee xamal ne Omar wax na ko am na góor ñoo xam ne boo bàyyee liggéey ci la ñuy maanaam ñoom jàpp nañ ne loolu mbégte lañ ko war a def maanaam léegi lépp lu mu soxla man la su ma ko defalee su ma am mënee def su ma mënul du ma def mhm. maanaam commencé di la torturer di la commencé ci liggéey moom wax dëgg fa waroo ko cee jëlee quoi voilà du xel muy liggéey voilà voilà du xel jigéen nag bi nga xam ne tey jii démb rek yàlla seede na ne am na koo xam problème boobu moo am ci fa mooy ndaw si liggéeyul woon bi mu koy takk mhm. ñaari sëyu xelal lañu ndaw si dem na ba ci kanam waaw ba ci kanam takk ko <laughs> ba quelque temps <laughs> voilà léegi kële nag dañ ko takk muy wëri liggéey léegi yàlla dogal fa mu nekk nag léegi problème la mooy liggéeyu guddeeg liggéeyu kii yooyu jëkkër ji commencé problème yooyu démarré li li may wax ne nijaayu xale bi mu may seetaan moo ma explique mu ne ma problème bi ci la ñu nekk kon boo indee thème bi maanaam thème bi dafa nekk loo xam ne nit ñi dañu koy dund bu commencé gul liggéey nga takk ko bul ko bàyyi mu liggéey wala boo koy bàyyi boog na nekk mu neex la maanaam mm-hmm. mu dem loolu loolu laay conseillé góor ñi ñuy góorgóorlu ci néegu sëy yi di di eh, sàmm néegu sëy yi góor ñi parce que man côté boobu dama ciy bëgg di insister man bu ma sañoon benn sëy du am problème ñëppay nekk si jàmm ñëppay enjoy hmm. famille yi neex kër yi neex néeg yi neex hmm. ah macha allah di jëlal <laughs> ay Jessica <laughs> euh, euh, Didi euh, dangaa indi lu am solo hmm. ñun ñi nga xam ne ñun ci dañuy liggéey di sëy en même temps mais day fekk sa jëkkër fekk la ngay liggéey mm-hmm. nga am jëkkër joo xam tamit dalay comprendre mm-hmm. eh, jëkkër joo xam ne yow li nga am xool ko xoolul ci dara li nga li nga am parce que yow li nga am yow intéressé yaa ko moom moom li mu ne de ah ah déedéet du loolu ndeysaan jëkkër joo xam ne li ngay am xoolu ci dara xoolu wallaay azim xool du ci xool dara du ci xool dara parce que danaan parce que ñëw ak yow ko war a taaj. xam naa fa muy dugg. xam ma nga dinaa xam fa muy dugg ndax la ko neex ah. kenn dara xoolu ma man ak euh, euh, non euh, xam nga. xam nga tey sa jëkkër du xool sa dara. Mm-hmm. du mais du tee yow am na yoo xam ne yow yaa ko moo la war. yaa ko def di nga ko def ay am yoo xam ne di nga koy def. Mm-hmm. di nga am da nga am loo xam ne da koy dundalee muy muy muy neex ci xolam. voilà di ko ci nekk kii moom lu mu voilà loo xam ne loo xam ne. Ah, waaw. <laughs> yow xam nga la bàyyi dugg jigéen yooyu di ko ci si yoo xam ne moom pour moom ah, la ah. xam nga loo xam ne. du ay caaxaan de. man li ma ci jaaxal mooy dañuy dem marché aslem yenu ay ay ay jaljalil defale loolu ah, ah ah jaljali baaxul. loo yarut su seen loxo. jaljali ça dépend am na góor ñoo xam ne bëgg ah. ko am ko bëggut. waaw ah, ça dépend alors mais nag a jël góor ñëpp dugal leen ci gaalu jaljali. man bëgguma cuuraay. te te gaañu dañ. waaye am loo bëgg ah léegi loo bëgg. ba jabar ba ko xamee da def. waaw xam ne monat Omar mi monat. <laughs> <laughs> Oh, mais yow mais Omar bëgg nga ñu taal cuuraay avant ngaa ñëw. non oh, lu lu neex lu neex kay ñëpp ko bëgg. mais li nga bëggul mais maraman mi saxaar seeg yooyu na noo def loo xam ne ci bi ne. muy xeeñ nànk muy xeeñ xeeñ xeeñ mu doon. looloo loolu danger ba ñu yow. saxaar c'est dangereux saxaar si yow te pas wu dëkk yee temps wu mag yu dëkk yee yow. pour yaay cancer lay jox. waaw saxaar si nga wutal ko ay ah? léeg yu baax ay mënat yu baax. ay mënat yu baax. mënat waaw baax mënat baax mënat tax yow trop. <laughs> ay sinistre lañ li ñuy def noonu affaire kii ay produits. ndax xanaa li ngeen di wax xaw dara mais ah, liggéey ah, liggéey mm-hmm. investir ci liggéey ci mm-hmm. jigéen. Mm-hmm. baax na parce que tey jii. am na solo de man bañu ma jigéen di liggéey. mais ji nga jigéen dafa war a investir seem ba am doom yu baax mais investir si doom ji nga jigéen résultat. bu doomam am lu ci ëpp moo koy jëriñ. bu doomam réussir ba am njariñ li ci ëpp moom moo koy jariñoo mhm. parce que ñëpp ci góor ñi mën naa am sax duñ ko fekkee dañ ciy investir mais jigéen ñi ñëpp ñoo ko jàpp pour man da nga war a investir mhm. mhm. mais temps bi nga a xam lan moo la war matal ko ba mu jeex am na ci góor ñoo xam ne dañuy dem ba egg ak sax jigéen foo xam ne fu am solo bi dëgg maanaam am ñoo am ñoo seen jabar day baax ba ñu utal def investissement dugal ko ci mais business di gagné. mais loolu jigéen ji moom moo koy liggéey ci sëy bi ba borom këram wóolu ko mais. na des fois bu business gagné war la nag. gis naa ko business gagné war la. Euh, hmm. jigéen tam neexuñoo faral maa ñoo yem. <laughs> ah mais am na ñoo xam ne dañuy ak seen seen kii dugal ñëwal tàggu kaw lépp day ñëw waaw comme yow su ko am dafa bëgg jëkkëram wax dëgg fa neex euh, yàlla mu ngi liggéey mu ngi sëy des fois day day day day day togg añam ba sóor jot mu ñëw liggéey wàcc dem sóor yi ah, ah, ah, voilà ma jël dëgg neexul yaa ngi sëy karat bi kat. saa dem wax ak sama yu baax. saa dem wax ak baaxam saa saa Souka Mbaye macha allah Souka Mbaye eh, waxtaan bi neexoon lool waaye namit lu duuf ci nag li xajul ci cin bi ba tax na damay remercier ki nga xam ne moo jaar ci maquillage bi di Fatima Sey eh, moo tax tay ma yaa ngi nii ak sama doom day Seka Fatou Fall nekk fële ca Salim def yu baax moo defar bopp bi Souka dina jox dig daje ba àllarba incha allah.